إذ ناديته بيا ولي أيا سمني لو هند ولي إبليس إذ ناديته بيا ولي asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi nga xam ne yéenay tàmm seen site bi di Info 7 TV ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen di nuyoo tey nag mooy dëkk bi di Daarul Muxti bu ñu ko waxee xel yëpp dem ci bis bi nga xamante ni moom la ñuy fàttaliku kii di maam Thierno moom moomee nga xam ne rakk la Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul moom kii di maam Thierno Ibrahima Faati Mbàkke doomu soxna uh, Issa Diop ja ak ki nga xam ne moo di maam Mor Anta moom nag bisam ñu koy fàttaliku fii ci dëkk bi nga xam ne mooy daarul muxti yi nga xam ne mu ko sancoon ginnaaw bi nga xam ne si ndigalul Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul la ko amalee moom moome nag la ñuy tax na lépp loo xam ne fasken na xew fii ci daarul muxti yi équipe bu info 7 ñu ngi fii dinañ leen ko toppal moo xam ci côté siyaar yi moo xam ci bërëb yi moo xam ni nga xam ne moo fi am ci ñi nga xam ne ñoo jógee ci yeneen i bërëb ñoo fi ngir amal seen siyaar ba ci li nga xamante ni moom mooy cérémonie officielle bi muy wane njeextalug màggalug lii di daarul muxti yi ginnaaw lu nag ñu fàttali moom kii di Mam Thierno ñi nga xam ne moo sañ ci dëkk bi di Daarul Muxti nekkoon fii moom nag jamono jii ki toog ci toogaayu euh, kii di Mam Thierno mooy ki nga xam ne mooy Serigne Cheikh euh, sëriñ Bassirou Anta moom moo toog toogaayam moom Serigne Bassirou Anta Niang nag mooy juróomeelu xalifaam jamono ji moom mooy yore liggéey bi di ko doxal kon nag lépp loo xam ne mu ngi am fii ci Daarul Muxti soxol màggal gi ñu fàttali leen tey moo yemoo ak lundi lii di 26 wala lii di 26 euh, février 2024 kon lépp loo xam ne fas kenn na fi am rek dinañ ko topp ak yéen ma am ak sama caméraman ñu dugg wan leen li nga xam ne mu ngi am fii ci màggalug Daaru Muxti édition 2024 lay nuyu bàyyi la nga fàttali ñu. Euh, Dame Dame Diop Dame Baye Fall borom matt mi rek. seen Baye Dame borom matt mi moom la ñëpp xamee tey ñuy màggalal bis bi nga xam ne mooy màggalu Daarul Moxti bisu maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru loo ñuy wax ci bis waaw xanaa di santaat yàlla bu baax di julli ci yonent bi Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di siyaare sëñ Muntaxa di ñaan saamborom yàlla yàggal ko fi di siyaare sëñ Basiru Anta Ñang di ñaan saamborom yàlla bàyyi ko fi ak njabootu borom Darou Mouhty gépp ak kilifa lislaam yëpp am mbégte mu rëy rëy ci jàmbaar ji nga xamante bii ni liggéey bi mu liggéeyal yàlla liggéeyal ko njol màkk liggéeyal ko Serigne Touba toppan ko magam ju baax ja dégg leen ko nangu leen ko mbooleem lu mu am rek euh, maanaam mu tënku ci kilifteef rek ak euh, nekk gu mu nekk nag maam borom Touba ku ne xam na ni borom daaru bokk naa sëriñ bi waaye bokk ga da koo jënde ak njureel euh, da koo jëndee ak tali bi ba tax na ñuy amaat mbégte bu baax nag di sant yàlla ndax teew gi nu fi teew te mu neex yàlla di ñaan yàlla mu bàyyi nu fi ñun ñëpp ba bu déwénee jàmm ñun ñëpp ñu teewaat ko ci barke borom Daaru Musti di ki nga xam ne moom la ñuy fàttaliku muy maam na nga xam ne ba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul dem ci géej bi liggéey gi yëpp moom la ko bàyyi woon te liñ ñu xamal booba ay atam passé wut fanweeri at ak nangam matagut sax ñeent fukki at mu taxawu liggéey bi ba sëriñ bi dellu siwaat fekkaat liggéey bi nga xam ne moom la ko joxoon dara manqué wut ci waaye daa fekk mu yokk ba ñu dellu siwaatal si jëmm jooju la ñu waaw bi ñu dellu siwaatee si jëmm maanaam nga xam ni bi sëñ Touba dem borom daaru Moussi la woon bi muy dem muy dem ko tubaab yi woo borom daaru Moussi la la la ñëw la woo mu ñëw ko Cerno mu ni ko Mbàkke mu ni ko dénk naa la njaboot gi dénk naa la dongo yi dénk naa la njaboot gi defe naa jamono yooyu booba kon xam na ni sëriñ Touba mi ngi dem waaye dem njët dina dellu ci ndax foofu waajuru maam Thierno sax àggan na ci ni Serigne bi maa bëgg nga ñaanal ma loolu mbirum baatin soxna Faati Isa Diop sëriñ bi ñaanal ko ba noppi xamal ko ni ko incha allahu ñu dem ci liggéey bi dellusiwaat fekkaat la fii. bi sëriñ bi demee adduna bépp a jàq adduna bépp a tiit ndax tubaab yi ñoo ko woon waaye bi ko tubaab yi woon mu ne borom daaru dénk naa la ñëpp daal di woo sëñ Mudu Mustafa ak ñëpp laat ak sëriñ Saliou njaboot gi ni leen ni ko dénk dénk dénk naa la ko dénk ko euh, baraada beeg déggoo ñu naa dénk na ko baraada ba gorga wa dénk na ko kafier ba dénk na ko maanaam xalima ga ak daajo daal ko ni Thierno maa ngi dem liggéeyal yàlla waaye bi sunu borom dogalee mu dem liggéey yàlla bu del ci waat it la mu ko dénkan lépp rek noonu la ko borom daaru musti saytoo borom daaru musti na doon jàmbaar joo xamante bii nii maanaam ak njàmbaram boo ko takk rek weesu na ko amoon na fit te ko te ko gëmën yàlla la te jàmbaar nañ joo xamante bii nit maanaam fi sëñ Tuubaa teg tànkam rek wala ko teg maanaam yar ak teggin rek ak loo yor rek nga jox ko sëñ bi maanaam taalibe maanaam amul dara lu sëñ bi ndax euh, bi sëñ bi demee ci géej gi bàyyi fi maam Thierno euh, maam Thierno bi mu ñëwee daa am lu mu jàppoon bi mu jàqee bi mu ñëwee daan ne sëñ bi daan ne soxna Fatou Issa man de damaa tiit mu ne ko loo waral mu ne ko sëñ bi dañ ko sàkkal pexe ne ko loolu amul. toggal naa ko laax waxtu toog san ba mu ko lekkee dan la mu tama loo bëgg mën na ko bu ma fi bëggee nga taxawu ma te nem koy waxoon ne la koy defee maam Thierno bi mu jógee am ak këram la ko suñu tubaab yónnee bi neex bi teexal da nga xamal na ko maa ngi ci jàmm kon nag ak taali bi rek am ak mu gëm yàlla ñu ko suñu borom defal di barke borom. waaw bërëb bi ñu nekk nag mooy baytul mahmour di bërëb boo xam ne borom Darou Rahmati moo ko sancoon ci bi nga xamee ni Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba jox na ko ndigal ni ko mu sanc ab dëkk tuddee ko Darou Mouhty bi mu sancee Darou Mouhty nag ci bërëb bi la ñëwoon sancoon fi lu tollook ñaari néeg benn néeg bi mu tuddewoon ko daaree kaamil ñu fay jàng alxuraan beneen néeg bi ci des mu woon ko maqaama ñaari néeg yooyu ñoo fi nekkoon daare kaamil doon bërëb boo xam ne ba bis ni tey bañ tàmbalee kaamil yi ba léegi bu sa danañ fi jàng kaamil boo xam ne suba ak ngoon lay doon ba tey ji loolu mi ngi am ci question bi nga laaj mooy bërëb bi naka dañuy taxawu la wàllu organisation bi ak màggal géej géey euh, xam ngeen ni mbir mu mën di doon organiser daf cay baax ndax mooy tax la nga bëgg lépp mu sotti léegi fii nag buñ dikkee mbooloo nii dikk danañ leen waajal bu baax a baax ci jumtukaay yi nga xam ne danañu ko aajowoo ci wàllu xéwal mboolem yi nga xam ne danañ ko soxla woo ba tey itam danañ fexe ba wàllu siyaar yi niñ koy doxale am na ñoo xam ne dañ leen a tànn teg leen ci wàllu waañ wax ñoom ñooy taxawee loolu am ci ñeneen ñoo xam ne itam biñ leen tànnee nañ leen doyee mooy fexe ba mbooloo mi ni ñuy seere ci biir di fexe ba ku ci nekk fa góor ne war a jaar ñu jaar fa fa jigéen ña war a jaar ñu jaar fa bërëb bi itam di baytul mahmur euh, njabootu boroom daaru mati ñoo fi nekk am na ci ñeñ ay doomam lañ am na ci ñoo xam ne ay sëtam lañ bu fekkee ñu fi nekk bari nañ euh, am na ku ñuy wax sëñ Cheikh mi ngi fi ginnaaw boroom daaru batu moomu nga xam ne moo fi nekk ak taawam bu ñuy wax sëñ Mouhamadou Ama Balla sëriñ Cheikh Faye Fall moom ma tuddoon léegi mi ngi fi sëriñ Soubayrou Mbacke sëriñ Habibullah ak sëñ Makhtar Samb moom lijaay la ci borom daaru moo ci nekk du doomam ak ku ñuy wax sëriñ Cheikh Faye moom doomam la ak sëriñ Ousmane Mbacke Noreyni am na itam sëriñ Maqdaan mbakke ak sëriñ Mbacke Anta Serigne Aydara Serigne Dame Fati Serigne Cheikh Khadi Serigne Mahmadan Koso Serigne Modou Habib ak Serigne Moustapha May Serigne May nag moom du doom maanaam sët la Serigne moom Modou Habib mooy waajuram moom sët la wax nañ ni mooy sët bi Serigne Touba Khadimou Rasoul njëkk a gis am na itam ku ñëw Serigne Abdoul Khoudous ak Serigne Abbas sëriñ Hamsatu ba tey sëñ Moustapha Hamsa mi ngi fi sëñ Moustapha Hamsa moom tamit sët la borom maanaam sëñ Mamadou Balla mi nga xam ne mooy taw borom Darou Mouhty mooy waajuram moom lañ denc fee nga xam ne mooy Daaray Kamil ñoo ñoo ñi nga xam ne euh, ñoo ñoo fi nekk ku ci nekk yàlla def na euh, biñ gëstoo ci yenn xam nañ ku ci nekk euh, date biñ fi ñëw ak ak dundam lépp lépp lépp waaye xëy na dañuy ragal ni euh, jot gi moo ñu ko dul may waaye kon moom danañ ci ñëw ci nu mu gën a yaatoo. du ñàkk ñenn ñi nga dellusi rawatina ñi nga xam ne ñoo toogaayoon toogaayu euh, borom daaru. ndax moom borom daara bi mu wàccee liggéey am na ñoo xam ne nii ñoo nekkoon yor liggéey bi toogoon toog xilaafa gi ba ci ki nga xam ne moo ci mujj su ma jubut sëñ Abdoul Khodos ba ki nga xam ne mooy Serigne Bassirou Anta Niang mi nga xam ne moo fi teew ah, boo si dellu si nan la mbir yi woon kan moo njëkkoon a dal xilaafa kan moo ci topp ak diir bi jamono ji nga xam ne yow yaa ngi fii nii di eh, wéy di saytu liggéey bi bi waaw xam nag moom ku ci nekk dat ñaata at la nekk ci biir liggéey bi loolu moom teewlu ma ko wax dëgg waaye ki ci jiitu ginnaaw borom Darou Mouhty mooy Serigne Modou Ama Balla ginnaaw bi Serigne Abdoul Khoudous Mbacké ginnaaw bi Serigne Cheikh Khady ginnaaw bi Serigne Abbas ginnaaw bi sëriñ Bassirou Anta Niang bi nga xam ni moo fi toog xilaafam ci jamono yi ñuy waxante ak yéen ñu ngi yàlla mu guddal fanam lool Mbacké te wéral ay cëram wax dëgg yàlla moom fa ña ko jiitu jaaroon rek fa fa fa la jaar ci yee njaboot gi ak dimbali leen ak teete leen ñaan yàlla mu yàggal ko fi lool te wéral ko bi jaay Seexul Xadiim bëggug sëriñ Tuubaa ci la ma sa nekk li sëñ Tuubaa bëggit moom rek la bëggan fitu njàmbaar jaat nag maanaam loolu moom ba tey ji mi ngi daaru musti li li maam Cerno nekk yoon it ba tey ji rek mi ngi daaru ndax defe naa ko taxaw ci barab yi nga jàkkaarloog barab sëñ Musaab sëñ Amsatu sañ Subeeru sëñ Abdou Khoudous euh, sëñ Cheikh Khady sëñ Cheikh Fatou Fall ak sëñ euh, Koso ñu bari ñu ngi ci barab yi boo fi ñëwee rek di siyaare seeram daw nga dem ci armeel yi di siyaare seeram daw fii nag mooy bayti di bëkk di di di barab boo xamante bii nii fii de borom daaru dëkkan fii de borom daaru nekkan euh, borom daaru mu si nag. ku ne xam na ni lu mosaam jox na ko sëñ Touba yar ak jàngale di bayub àll di sëf yi giréem di ko jox sëñ Touba lu ñu ko mos a jox rek sëñ Touba la koy jox waaye nag ku mos a jàkkaarloo borom daaru rek di nga daw mbaa nga daanu fi suuf ba fii ne sa tam yi fi nekk fi nu teel tembe xooxu dàqu leen jam ay jàmbaar lañu waaye li seen bàyyi bëggan di seen maam yi rek ci lañ teg seen i tànk parce que démb sëñ Moussa Absa jóge fi bàyyi ko ah ci loolu tegan tànkam. sëñ Abdou Khoudoss ak sëñ Bachir ak ñëpp waaye Darou Mouhty di di fi ñëw lu am solo la ndax fii day kër goo xam ni day kër gu mag di ab rënk bu sëñ Touba rënk maanaam fii sëñ Touba dafay rënk rënk daal xam nga rënk nag moom bu yàggee rek boo rënkër ci di nga gis lu rënkan waaw fekk lépp ñor maanaam mbiri baatil yoo xam ne daal am na ci yoo xam sax sañu su ko wax ci rajo yi wala télé yi ndax ay secret la waaye li gën a am solo daal mooy borom Darou Mouhty moom moom comme masa dajeel daanu ko suuf te it julli ak jàng alxuraan ak jaamu yàlla ak bayib àll loolu la nekkee woon ak jàngale ak lu mu am jox ko sëñ Touba déggal sëñ Touba nag topp ko rëkk nag def ko sëriñam du faat waxtu mukk julli waxtu yu juróom jàpp njàppum sell li sariya nekk du bëgg rek ci la borom daaru mus nekkal li sëñ Touba bëgg nag ci la borom daaru mus nekkal nga xam ni kamanu fit la ku doonoon jàmbar na lu bari daana ko dikkalit waaye lu mu mës am rek jox ko sëñ Touba ñi ko fi wóoru tayit lu ñu mën a am jox nañ ko Serigne Touba muy doom muy sët ba ci sëñ Bara Anta Niang mii ba ci xalifa yi wutuwaat maam na ñëpp ba sëñ Modou Awa Balla ba ci sëñ Modou Awa Balla sëñ Cheikh Awa Balla jàmbaar bi ba ci maam na mii ba ci sëñ Bass Abdou Khoudoss mii ba ci doom yi sëñ Cheikh Khady jii euh, euh, ñëpp daar mus jëpp rek ñu ngi tënku ci ndigal ndigal moom bu jógee jeex na lu sëñ Tuubaa bëgg rek ci la ñu nekk ku xam daarul xam ni daarul nit ñoom fit lañu nit ñoom ngor lañu nit ñu am jom lañu nit ñu am kóllëre lañu li sëñ bëgg rek la Daaru Musti bëgg boo taxawee Daaru Musti rek man ngay taxaw naa Tuubaa léeg-léeg da léeg rek kat dendee Daaru Musti te Daaru Musti di fi ñëw maanaam lu am solo la waaw boo taxawee ci jumaa ji dugg ci jumaa ji nga xam ni borom daaru daal liggéeyal sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa bi mu ko yón bi ko yónnee Ndar bi mu ko yónnee Ndar ca tubaab ba ba maam Cerno demee ba wax ak tubaab ba tubaab ba defa tiit tubaab ya fa nekk yëpp dañoo tiit dañu ne kii ku mu doon ñu ne ko rakki borom daaru ah rakki borom daaru mu si ma wax ji wax mu ne waaw waaw kon njàmbaar googu mu doonoon jàmbaar ñim fi bàyyi di ay ak i sëtaat njàmbaar googu moo moom moom ne ci ñoom ndax maa ngi teewlu yu bari sax duma ko wax ci télé duma ko wax ci rajo loolu mbirum baatin la waaye ba tey ci taalibi daaru mu si lu sëñ Tuubaa diile rek ci la nekk nga xam ni daaru dañoo boole ak njàmbaar ak fit ak nu liggéey tey dañu tooñ nag ñuy wa ñuy wa ñuy moytu ñuy wattu tooñ lañu daaru mus moom xamuñu lu liggéey ak jaamu yàlla jàng alxuraan julli waxtu yu juróom lu ñu am jokk sëñ Tuubaa daaru mus si daal moom dañoo tënk ci ndigal defe naa boo dee kaggu gee nga gis fi alxuraan gi nga xam ni ñii li borom daaru bëggan moom lañu bëgg fii mooy baytu fii de maam Ceerno dëkkan waaw fii àll la woon waaye Sëriñ tubaa moo joxoñ borom daaru mus ni ko barab sàngam garab sàngam boo fa àggee foofa fii la ko fii la maam Thierno sëñ Tuubaa yow maam Thierno fii ni ko fii la ndigal li fii la ndigal li. Daaru kan ñëw fii. maa ngi jóge Dakar laa nekk mais maa ngi jógee Njib ndax man maam maam Thierno mooy sama sëriñ papa sëñ Atex maam Cheikh Awa Balla mooy sama sëriñ moo tax ma jógee Dakar ñu màggal si màggal gi euh, fii nag am na ci moom tekkiwul ni li ma bëgg a njëkk leeral mooy tekkiwul ni am na njaboot borom Daaru Muxti goo xam ne ñoom nekkuñ fii ci bayti lay sabab bi nag xëy na ci sama njoot nag laay wax du xam-xam waaye damay ragal ni ñoom bi ñuy wuy ji bi ñu bàjjana day damay ragal ni bayti bayti sosoogul wala boog bu sosoet tàmbali woo guñ fee denc kenn am na ñoo xam ne ñu ngi fi dee góor am na ci ñoo xam ne nag nga xam ne moom ay mbokki jigéen lañ ñoom dañoo nekk ci yeneen bërëb yeneen bërëb ndax boo xoolee borom daaru moytu am na ku siiw si ku ñuy wax ku ñuy wax sëñ Jaxama Ball moom mi ngi nekk fële ci Daaru Daaru Daaru Daaru Marnaan bu sëñ Jaxama Ball comme ni ñu koy waxee jamono ji sëñ Maam na moom moo moo ko fa teewal am am na itam ku ñuy wax sëñ Abdourahmane kooku ma nga fay Daaru Rahman Daaru Marnaan bi nekk Touba kon loolu daal daanaka mbokk ñi nga xam ne jigéen lañ moom ñoom kenn kenn nekkul fii ci li nga xam ne man teewlu naa fii liggéey bi yéen a ko seere wàllum kaaraange gi wàllum dugg gi génn gi pour ñu war a mën a def seen siyaar loolu naka ngeen koy doxalee ak yow mu nga xam ne bokk nga ci liggéey bi ñaata at la kuréel gi taxaw ngir mën a amal lu waaw kuréel gi nag xam na bi mu taxawee dëgg dëgg dëgg taxaw bi war dëgg dëgg dëgg mën nañu wax ni ci ñeenti juróom ci lay toll jamono yoo ko jiit nag daanañ taxalaatu buñ dikkee taxawaay bi ñu formé dëgg dëgg dëgg moom mën nañoo wax ne ci ñeenti juróom ci la ci la taxaw su ko defee moom nañ ko doon doxale leerloon naa ko ci sama biiri kàddu léegi noonu incha allah. leerloon nga ko mais jëmmi kuréel gi nee nga si diirum ñeenti at daanaka lañ taxawale juróom taxawaay boobu noonu benn daayira la wala ay nit ñoo xam ne woy donga daara yu la tarbiyu yu ñu ñëw ne dañuy taxawu liggéey maam Thierno bi moom laa bëgg a xam kuréel googee nag ngeen doxee ak. ban ñaata fan ngeen def fi nga xam ne moom mooy ci bërëb bi avant siyaar avant màggal gi na ak pendant màggal gi après màggal gi nu ngeen waaw kuréel gi moom fii la féete teewul nag am nañ ay membres yoo xam ne ñoom dañoo tasaaroo waaye teewul mooy indi mooy indi communication yi nga xam ne moo am léegi ci la déggante ba taxawal li bëgg a taxawal ñu lañ féete moom suba ba ngoon ñu ngi fi. jamono yi nga xamee ni du du euh, événement yooyu buñ dikkee dañuy xëy si fajar buñ xëy si fajar ba yàlla dogal ñu timis jot su boobaa nag dañuy tëj daal di dellu nag daara ji ngir bàyyee si bàyyee seeni borom bërëb bi su fekkee jublu xam nga li ma li ma jubloo wax ndax bërëb bu nekk day am borom bu timis jotee nag dañuy bàyyee bërëb bi si si si seeni borom su ko defee nag daal di dellu nag daara ji su ko defee nag yu mel yu mel événement yi moom. yàlla dinañ defal tawfeex woyofal ni ma ñu ndimbal ak yërmaande xiirtal ñu ci ñu mën a ànd ak mbooloo mépp dundal guddi googu mbaa bés boobu ci loo xam ni duñ ko tënk ci ne heure bii la ñuy xëy wala heure la ñuy wàcc waaye daal daara ji moom moom fii la nekk ci baytul maxmuur moom fi la nekk. wax nga ci wàllum lekk yooyu gis nañ ñoo xam ne ñooy féetee ci côté sédd lekk gi ñi nga xam ne dañ fi ñëw nañ ñoo xam ne dañuy defar café yooyu loolu ay nit la ñu ñëw rek ngir barkeelu ci bés bi wala ci même kuréel gi moom moo partagé wu ba nekk ñu am nañ la dénk nga xam ne bés bi képp ku fi ñëw bu dee yow def nga sa siyaar lekk fekk la fi di nga lekk bu dee aajowoo nga ci café gi yow itam di nga ci barke kuréel gi tànn na personnel ñoo xam ne ñoom fa lañ féete waaye ginnaaw bi kooku mbirum barkeelu la ni ñu ko miine am na ñooñ dañuy dikk di barkeelu ci ci ci bis bi su boobaa it loolu duñ ko nangu maanaam duñ ko bañ laa bëgg a wax waaye danañ ko teg ci organisation bu jaar yoon ndax duñ seetaan mu ko mu ko li nga xamee ni moom lañ organisé ba teg ko maam kenn du ko yàq te bu bëri dinañ la placé foo xam ne da nga mën a joxe da nga bëgg a joxe ñëpp xewalu ngir ñëpp mën a barkeelu ci bis bi. ndaamal daaru xel yëpp maam Thierno ci la ci la ñuy nekk. ndax ndaamal daaru la waaye nag dafa dafa sutum njool daa sutum njool ci baatin ndaamal daaru la gaa wax waaye bu ñu nee ndaamal daaru rek maam Thierno nga xam ni daaru Muxti moom mbir yi baatin moo fi nekk ay mbir yi baatin yoo xam ne macha allah jàng alxuraan woor woor julli waxtu yi juróom liggéey jaamu yàlla fu ñu toll ñu jàpp di julli di jaamu yàlla di liggéey di dem ci daara yi nga xam ne daara yi dañuy liggéey lu ñu bay ci daara yi jox ko Sëñ Tuubaa fii moom fii moom boo déggee ñu kër borom daaru mooy kër borom daaru waaye mooy kër Sëñ Tuubaa sànq sa yaa ko wax wàllu mbay tey boo xoolee ku mel ne sëriñ man Mandumbe Xabaan tey ji dugub ji nga xam ne daan na ko jël di ko bay di ko jox maam Cerno ba ci Serigne Touba tey histoire boobu noonu la. waaw xam nga Cheikh Mandumbe kooku moom nekk na koo xamante bi nii moom it ay sàqi fukk da daan bay di ko jox di ko jox Serigne Touba sëñ Mandumbe nekk na jàmbaar joo xamante ni mbayam daawul dugub biiram doomam jii di sëñ Mourou Xabaan sax mbayam du dugub biiram ba ci sëtam yii di sëñ Ibra ko jëmbaat yi ak njaboot yëpp sëñ Mandumbe moom liggéey la xam lu mu am jox ko sëñ Touba. sëñ Mandoumbe ba ba bi mu fi bàyyi koo der gi mu takkan ci biiram bii bi mu fi bàyyi koo noppalu der gi nungul koo tikki der gi la der gi la demaale demaale demaale àjjana doon jàmbaar joo xam murid saadix la doon ko bari mbooloo waaye sëñ Mandoumbe lu ñu ko mas a jox rek mu jox ko sëñ Touba waaw ay sàq bukk daf ko daan semb jébbal ko sëñ Touba. ba fi ñu ne njàmbaaru sëñ Mandoumbe ga moo nekk ci waa kër sëñ Mandoumbe yi di tàmbale ci Mamor sëñ Ibra sañ Cheikh Bint ba ci sañ Saam mi njaboot sëñ Mudu Xaban gépp lu ñu am rek jox ko sëñ Touba xam ni maam Cheikh doon def rek noonu ñoo ñooñu mag ñooñu mosuñoo fanaanoo dara lu ñu am rek jox ko sëñ Touba borom daaru mos si mos a fanaanoo dara soo masaa ñëw ni ko boroom daaru diw de faatu na mu ni alhamdulilah rabbil alamin nga ni borom daaru musi diw de am na doom mu ni alhamdulilah rabbil alamin nga ni diw de këram lakk na mu ni alhamdulilah rabbil alamin nga mu ni diw de laa feebar mu ni alhamdulilah rabbil alamin am ku ko ne borom daaru sañu noo laaj de waaye bànneex ak naqar bu ñu la wax nga ne alhamdulilah rabbil alamin mu ni mu ni lépp jëfi saa borom la te yàlla lu mu jëf maanaam ak cant la caa war kenn du borom daaru musi maam Thierno mii bisam bi benn la diir bu gàtt fii nga taxaw doo fi taxawaat adduna bépp Sénégal gépp ñëw di siyaara yor yor bi gis nga ko gis nga bernde yi macha allah daaru musi dañoo nangoo liggéey te kat du ñu tooñ de daaru musi du ñu tooñ de dañu ñu moytu lañu rek ndax ñoom du ñu tooñ feneen nit du ñu tooñ ndax boo waxee loolu te waxoo noonu maanaam dañ dañu si gisee neenu neenu waaye jàmbaar ji di maam Ceerno Ndaamal Daaru mii kooku daal yàlla nañu yàlla tax ci barkeem yàlla nañu yàlla mag jëw màggalam di ci siyaare maam Ceerno sëñ Cheikh Awa Balla di ci siyaare Euh, euh, sëñ Modou Mahfouz sama xarit sama wëllëre li ci siyaare doomi sëñ Cheikh Khady ji ak sëñ Bass Ñang Anta ak ak mboolem waa Darou Moussa jëpp nag li ci suñ sëñ Mountakha kan. ak kan mooy jëwriñ. Euh, kuréel gi ñoom dañ ko tuddee rek ñu bëri bu tudd baytil Mahmour lañ ko tuddee di mu tur yi lañ ko peewaat rek teg ko ci teewul nag am na kuréelu xasida bu fi nekk. di ko set setal kuréel googu moom mi ngi tudd mooy bu naafi ma mën nañu wax ne ñaari commission yu dajee lañ ñaari mbooloo yu mbooloo yoo xam ne yu yu yu dajee lañ ñoo bu nekk ci wàllu organisation ak dara ñee nekk ci wàllu wàllu xasida yaak wàllu culture di jàngale ak di ak di yee nit ñi euh, kuréel gi ki ko jiite mi ngi wuyoo ci moom Serigne Cheikhouna Samb moom moo nekk ci ci bërëb bi teewul nag am na jëwriñ jum ne booleel jëwriñ jooju mi ngi tudd sëñ Moustapha Samb. Hmm. yow mi ñu doon waxaat boo ñu buggee dellu si wàlla fàttali ñu tur bi lan ngay wax ñi nga xam ne ñoo lay seetaan. waaw kii xanaa jëmbale ji xew ba xew rek di ñuy wax Abdou Khoudous Samb hmm, ci lay wuyoo Abdou Khoudous Samb béyti. doos ñu bàyyi la nga def sa kàddu yu mujj ñi tàggoog ñi seetaan si. waaw xanaa sant rek sant rek tey jégalu bu baax it ci kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko di wax ni du xam-xam bañu itam ku ñu jubbanti. képp koo xam ne dégg nga ñu wax loo xam ne xëy na waruñu ko woon wax wala yu demeewul noonu noo ngi lay ñaan nga jubbante ñu xam ne loolu moom njumte la rek di matadik doomu aadama ñu ngi sant bu baax. si daal macha allah di ci siyaare sëñ Mourou Kara loo rëy jàmbaar jooju man gis ko rek laa bëgg waaw dama ko gis waaye sëñ Mourou Kara bëgg naa sama xol lool macha allah waaw baax jërëjëf sëñ Dame ñu bàyyi la nga tàggoo ñu ne waaw di ñaan sëñ tubaa rek maanaam ñu defal nu aajo ju faju te réew mi dal te réew mi noo ngi ñaan ci borom daaru si nag ci gën maanaam réew mi dal ndax nun bu ñu amee jàmm rek ñëpp am jàmm te réew mi nag dina am jàmm ndax sëñ Tuubaa ci boppam moo ñaan ci réew mi te sëñ Blaat noonu na koo xam ne yan ngaw ay bëgg ko indi ci réew mi doo ko yenn ko sëñ Blaat noonu na ku yanoo ay bëgg ko indi Sénégal doo ko yenn ko loolu sëñ Blaat ko wax kon nag réew mi moom jàmm fi mën di sant yàlla bu baax Euh, di ñaan nag sa man ñu dool loo dimbali ba camion yooyu mat yi rek man man di ko sarax di ko yóbbu magal Touba ndax ñeent fukki at ci ren at mu ne maanaam ku fi toogal Serigne Touba di xalifa daam moom sarse mat yëpp yët Serigne Touba rek kooku daal man mooy mooy sama ittee man di ci fasaale donga yëpp iblisa isnataytuhu إبليس إذ ناديته بيا ولي